la am na leen fa yóbbu dañ fa dem ngir sàkku sàkku yokk ci wàllu am-am wala yokk ci wàllu xam-xam waaye am nañ beneen warugar nag mooy sàmm seen bopp sàmm seenum njaboot aar seen bopp aar seenum njaboot warugar boobu itam nag nekkut lu mënuta nekk mooy luñ mën a sottal la. lii sëñ xaadim wax buñ ci jaaree foog naa sottal ko dana jàppandi waaye day laaj nag ñu am yëg yéeg bi ba noppi ndax mbir luñ naan balaa e, jàngoro faju boroom da koy yëg ba noppi kon mooy nit day yëg ne am na aajo ba noppi door mën a dox ca la koy faj aajo ji nag foog naa ne war nañ koo bokk yëg kon war nanoo bokk dox itam ci li koy faj kenn ku ci ne ak wàll gam ci féete bi muy tudd dafa tudd yenn réew yoo xam ne ca njëlbeen ga foofa la njëlbeen ga amee woon rek muy France ak itali waaye yenn réew yi itam noonu la doxe Espagne ay Allemagne ay bu dee États-Unis moom itam réew yooyu yëpp itam ci anam yi mu waxee rek te njëlbeen gi nekkoon France ak Italie yenn réew yi ci des itam noonu lañ doxe waaye daa joxe woon ay misaal rek moo tax tuddul réew yëpp kon nag xam naa. li wax moom du jar dellu ndax leer na euh, xëy na li ñuy def rek mooy kon am ñuñ jox ñu yokk ci seeni kàddu ñoom it sang si tedd si ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di soyaare itam di leen jaajëfal di leen balax tey baleen tàq di nuyu suñu sang bu tedd bi sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg lool lool tànd ak wér di nuyu itam suñu wëllëre sunu sëriñ sëriñ Isaaxa Mbàkke moom Cheikh Mawdo Basiir yàlla na fi yàgg lool te wér ak njabootug lislaam gi yépp nag di ko teg sañ Cheikh mi mu jottali ko njaboot gi sëñ Xaadim Silla ñu ngi lay jottali sunu nuyoo mu jëm ci njabootug Daaru Xuddoos gépp gi ma bokk sëñ Abdourahmaan Mbàkke fatabaarakallah xam nañ la bu baax sab taxawaayu démb tey doo a dikk yàlla yàlla fay la fayaala njaboot gi yëpp bokk eh, dañu am mbégte lool ci woote bii nga xam muy woote bi lislaam jëme ko ci bokki lislaam yi bokki Espagne yi lii sëñ xaarib si la wax Espagne dañ ko soxla lool dañ koo manqué lool itam manqué nañ ko lool ndax gone yi ñu ngi bëgg yàqu ca réew ma te tënañ mënuñ leen dara loolu mu wax am naa ci ay cas ndax man booba ne man 82 ba tey baa ngi fay dem sama njaboot da nga fa tëma ñeneet ak ñeneet fa tawaar kàlla ba tax na lii dafa ko war bis bu ne chaque quelques jours mu ñëw waxtaan njaboot gi yaddaal njaboot gi ci daayira yi loolu ñu ngi koy dagaan sang bu tedd bi mu jox ko li ci des xam naa duñ ci soo dañ koy jox sëñ Siiri Ñaang sunu doom mu jot li ko waaye liñ mën a wax daal mooy sant nañ njaboot gi yëpp ci taxawaay bu rafet bii nga xam moom la jox waaye Espagne waaye Espagne gi yëpp ñu ñuy dégg waaye rafetlu nañ ko ñu teg ko ci lu sol loxo président bi suñu rakk sëñ Mbàkke Njaay e tegati ko itam ci suñu mbokk mi ñu wax sëñ Mor Tambédou ak bokk yi nga xaay moom lañu bokkal daayira yëpp fanweeri daayira ak benn nekk fa lépp ñu ànd lëkkaloo di liggéeyal sang bu tedd bi yàlla na fi yàgg te wér di siyaare ñëpp nag di sant bu baax a baax a baax xam naa du ci ndax suñu njaboot gaa ngi nii toog ñu jottali ko njaboot gi waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf sëriñ asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki jullit yi rawatina bokki taalibe yi ak sunu kilifa yi nga xam ne ñoo teew ci jataay bi ginnaaw bu ñu nuyoo siyaare Cheikh Mamadul Muntaxa ñaanal ko yàlla sunu borom mu dolli ko fee yàggal te wéral ko ba naa li mu am ngir liggéeyal ko maamam xaadimu rasuul mu def ko te ànd kook moom di siyaare bu baax a baax sëriñ Cheikh mbàkke moom Cheikh Mahamadul Muntaxa di jël nuyoo beeg siyaare bu fédération bu Espagne te Serigne Mbacke Ndiaye nekk ca bopp ba ak sëriñ Mor Tambédou bu nu tegee siyaare bi ci loxoom rek dina ko jottali ci mbooleem kilifa yi nga xam ne teew nañ ci jataay bi. di sant bu baax ak a jaajëfal Serigne Khadim Silla mii nga xam ne moo doon def waxtaan wi muy waxtaan woo xam ne wu am njariñ la di siyaare bu baax Serigne Cheikhouna Mbacke Abdoulou Dóot mi nga xam ne moom la ko feggooloon. di leen jaajëfal bu baax a baax ci turu njaboot gi nga xam ne ñoo nekk Espagne yaakaar naa bi nuy ñëw ànd nañoo ay mbokku taalibe yoo xam ne yu am solo lañ ci biir liggéey bi euh, ku ci mel ne alxaaji Abdou njaay mi nga xam ne moo doon wax nekk président bu Îles Canarias euh, feggoo itam Serigne Malle njaay bokk ci jëwriñ yi Murcia ak Alicante naka noonu itam Serigne Daamloo di jëwriñu Touba Ibisa ba noppi itam jiite fondation xaadimu rasul bi nekk Espagne ak Serigne Babacar cax mi nga xam ne mooy secrétaire bu fondation xaadimu rasul doon président bu euh, Catalunya ak sëriñ Abdoulahi Diop mi nga xam ne mooy trésorier bi nekk ci jëwriñ bokk ci jëwriñu Touba Madrid ak sëñ Fallou Kane mi nga xam ne moo yore organisation bu fédération bi Baye Serigne Touré mooy trésorier bu fédération bi. ak euh, njaboot gi ñu àndal yépp am na ñooñ sax séenuma leen waaye bari na ñu fi teew li waral teewaay bi nag mooy solo soo xam ne waxtaan wi am na ko ndax bu ñu xoolee rek sëñ xaadim am na yu mu junju yoo xam ne yaakaar naa ñun ñëpp ña nekk ca réew ma xam nañ ne jafe-jafe yii sëñ xaadim wax yu ko raw ci la ñu nekk yu ko raw moo ñu dal ndax li ko waral mooy li mu wax rek ci biir waxtaan wi day dëkk boo xam ne dafa am ay réalités yu fa am te ña fa dem dëkk ba ñu jógee bokkul ak la xew foofa te ñaare bari na ñoo xam dañuy bëgg dund ñaar yépp mooy dañuy jël la nekk foofa jël la nga xam ne dañ ko yóbbaale foofa loolu nag ñaare di indi ay jafe-jafe yu baree bari di ko indi si jigéen ñi di ko indi si mag ñi di ko indi si ndaw ñi rawatina nag ndaw jafe-jafe yi ñi ci gën a gàllankoor wala ñi ci gën a loru ñaar la muy ndaw ñi ak jigéen ñi ñoom lu ëpp ci jafe-jafe ya nga xam ne moo am ci réew mi ñoom ñoo ko gën a toggoo ndax bu dee mag ñaare bari na loo xam ne yàlla mën na ko caa muccal ndax ki nekk fii ci réew mi dund ba am ñaar fukki at ak juróom wala fanweeri at door dem tukki am na lool pour ñu sensé ko ci moom wala ñu def ko ci moom dina xaw a jafe daanaka boo dee xool téeméer ci ñu mel noonu fukk sax ñoom mënuñ ko cee am waaye ñi nga xam ne nag dañuy am ci ñoom cent pour cent wala ñu am ci ñoom cinquante pour cent mooy ñi nga xam dañ faa demee ci at yu néew mooy lu toll ci fukki at ak juróom-ñett wala lu ko yées kooku pour ñu soppi ko wala pour ñu def ci moom dara day yomb te lu ëpp ci ñi nga xam ne ñoo fay nekk mu immigré yi dañuy profité dañuy njëkkante di yóbbu seen njaboot ngir ne naa fexe ba dugal ko balaa matal 18 ans ma ciy am coono wala yu mel noonu waaye ñu ëpp ci ñi koy def daanaka ñu néew ñoo koy def ba noppi toogaat di sant maam ñu ëpp ci ñu ko def ko defee dañ koy réccu dañ naan man de su ma yëgoon duma ko def parce que liñ doon dabu wala liñ doon wut ba tax ñu def ko maam pertement bi mu leen andil wala jafe-jafe yi mu leen indil moo ko ëpp fuuf gën koo métti kon nag loolu euh, comme li seen sëñ mu ubbi rek si waxtaan wi loolu laajaat na yaakaar naa jataay bu mel nii dina si xaw a ndaw lool kon yaakaar naa dina laaj ay waxtaan yoo xam ne dañ koy waxtaan gën koo sensibiliser ñi nga xam ne ñooy parents yi ak ñi nga xam ne ñooy góor ñi ak jigéen ñi bañ gën a bàyyi xel loolu ndax ndaxte jël euh, xale yóbbu ko ci réew ma ngir ne naa dem bu demee am kayit wala su demee am xaalis wala yu mel noonu mu dugg ci loo xam ne mën naa am kayit de waaye xaalis sax du ko am ndax la muy dugg jafe-jafe yam koy jural pour mu am xaalis sax day jafe daanaka boo xoolee ñi gën a réussir xam ne dem nañ ba am nationalité ca réew ma wala euh, ñu dem ba am fa yenn moyens yu baree bari maanaam ñoom ñoo lijjanti sax ba dugal fa seen bopp nga xam ne kenn yóbbu leen ñoo def seen pexe def seen i dugg-dugg ba dugg fa daanaka ñoo ñoo ci ëpp ñu ñu réussir waaye ña nga xam ne dañoo dem rek ci familiar lañ demee seen papa moo am nationalité wala mu am résidence fexe ba yóbbu leen ca te alaas ba mu leen fay yóbboo daanaka ay tout tànk la ñuy doon ñooña daanaka ñu ci néewu néew am na sax du ma ne ñëpp de waaye am na ñu ci am njariñ lool waaye loolu nag ñi ci ëpp ay lor ci ñooñu lay jóge kon loolu yaakaar naa lu mat a bàyyi xel la waaye yu mel nii daal bu ko defee ak taxawaay yi nga xam ne daayira yi ak fédération yi war nañ koy taxawe bu boobaa dina bari loo xam ne dinañ ko récupérer waat ci njaboot gi eh, ñu ngi leen sant bu baax baax di leen gërëm xaj na kàddu yi duñ mën a guddal ndax jataay bi xataay beeg yooyu waaye lii daal nanga xam ne eh, fédération bu Espagne bi moom am na si mbégte mu kawe kawe kawe ngir lii day lum yàggoon a bëgg yàggoon ko wut Euh, yàggoon ko xemmeem kon bu ngeen ko taxawalee ñu ngi ciy sant bu baax di leen gërëm di gërëm Serigne Cheikh Mbacke moom Cheikh Mahamadul taxaa di ko ñaanal yàlla suñu borom gën guddal aw fanam gën a wéral ay cëram ba jataay yu mel nii mu yàgg koo taxawee ñu yàgg ko ànd ak moom jërë ngeen jëf. Euh, di ñaanal sëñ Cheikh Mouhamad taxaa suñu boroom yàggal ko fi loolu te wéral ko euh, di wax alhamdulilah rabil alamin di sant bu baax sëñ Xaadim si la ci thème bi mu traité laal nañu bu baax a baax a baax euh, euh, wàllu yi damay sof rek ndax fédération Espagne moo ñu bokk ëmb ñun ñëpp ci njiital sëñ Mbacke njaay waaye ñu àndal tey suñuy magu daara suñuy kilifa jiital si Baye Alaaji Abdou Ndiaye euh, ñuy xamle ci mbooloo mi rek ne Espagne bu melee nii mu mel tey mag ñi ñoo tax Baye Malle dëkk boo ci dugg rek ñoo daan laqatu di dund seen diine yi di def lu bare bari ba tey buñ naan njabootu Sénégal ñi nekk bitim réew ëpp nañ trente mille personnes wala lu ko ëpp loolu nag mag ñi ñoo liggéey lu mel noonu euh, ñu santaat ci yàlla bu baax fi mu bëggoon a duggee ci waxtaan wi rek mooy yaatuwaay boobu moo tax ci njiitalu sëñ daam xariloo ñu xalaat def li ñuy woowee fondation Xadim Rasoul fondation boobu nag mooy li gën a kawe ca réew ma ñuy dund lu ñu mën a taxawal sëriñ bi ci biir loolu état bi reconnaître na ko ñu war a dox nag jëm ci ci liggéey waaye xam naa ci tënk rek dañ ko mën a gën a yaatal ci yeneen jotaay ma ma jukki ci rek juróom-ñetti commission yu nga xamante fondation bi fas yeneen di cee liggéey am benn nag bu ñuy tàllal loxo bu ñuy tàllal loxo eh, sëñ xaadim mu ñëw ci muy état bi ndax ñu nit ay doomu réew mi lañ te état bi it war a gestu doomu réew mi ya nekk bitim réew kon nag du doy rek rek rek eh, ñuy mel ni ñu am ñu mel ni sëñ xaadim ñu ngi koy ziar bu baax ci taxawaay ñu dugg fa xool ni ñu nekkee doon ci ay seede waaye nag état daf ñoo war a yóbb yónnee it ñu jàngal ñu taxaw njaboot gi loolu it day seen wàll ñu ciy tàllal loxo eh, eh, mbooloo mi fi teew yëpp ci tàllal loxo sëñ xaadim commission bi njëkk mooy commission sociale bu ñu fàtte ne suñuy doomi réew damay njëkke am na ñu nekk ci hôpital yi amuñu sax ku leen taxaw am na ñu nekk ci prison yi amuñu ko leen taxaw loolu it dafa bokk ci dundin bi ñuy dund fële kon commission sociale ci wàllu rapatriement corps fi mu ne ku wàcc liggéey ci ñun yàlla na yéex jafe-jafe ñi am yooyu yëpp euh, ci taxawaay fondation bi ñu ngi koy bàyyi xel ci commission sociale jàppalante mu amaat beneen commission muy commission Kër Sëñ Touba bu ñu sañoon Kër Sëñ Touba yi xam naa sëñ Xaadim jar naa dugg ci réew mi mais commi euh, Kër Sëñ Touba waree dignité bi mu a am ci dëkkuwaay ci jàng ci ci ci bërëb bu nit mën a jàngee ci sàmm suñuy doom yi nga xam ne système bi xëccoog ñoom nag dafa am lu mu leen di jox. système bi dafa mooy warugar yooyu sëñ bi nga doon wax dafa diis ba day xëccoog suñu doom yi ba ñun luñ leen mën a tegal it duñ ko gis. nan la ñuy def nag ba am tolluwaay boobu moo jara waxtaani ri commission sociale boobu bu weesoo commission kër sëñ Touba yi benn borom mi bañ ko cee am ci benn kër sëñ Touba lépp ñu fay ko mu wér commission organisation lépp lu ñuy def ñu tënk ko ci xam-xam ni ko sëriñ bi bëggee bañ a bàyyi dara di defantu dara ndax foofu it ay la yéwén ci xam-xam la ñuy dox te faaw ñu gis lu leen lu leen yéem ngir mën laa fekk si ci sa sa taxawin am nañ si sa ay anecdotes yéeme. Eh, am na ci ku ma ne ku ne ma man bi may may jax eh, tuubeen la ndax ndax ñiy dugg si it faaw ñu bàyyi leen xel waaye ñi dugg génn it faaw ñu bàyyi leen xel am na ku ne ma eh, man bi may dajeeg sëñ Tuubaa bu doon bouddhiste bouddhiste laay doon bu doon nasaraan nasaraan lay doon lu mu doonoon rek laay doon bi may dajeeg sëñ Tuubaa loolu nag wax bu xaw a yéeme la te noonu la noonu la duggee ci diine commission nouvelle technologie jamono fi mu toll ci ci société de l'information ci li mu laaj yéen jumtukaay la ñuy am am suñuy télé am suñuy rajo am suñuy supermarché am suñuy jumtukaay yu nga xamante nii lu ñu bëgg a def mbox mbooloo lañ marché lañ mbooloo lañ lobi te loolu it ay jafe-jafe li dund te ba léegi tegagul am na sax eh, yenn cere yeeg sànqal yi nga xamante ni suñu doomu réew yi dañ koy soxla foofu léeg-léeg sax dañuy am jafe-jafe am fu ñu ko jënde kon muy lu nga xamante nii waroon nañu def suñuy vente en ligne di def ay taxawaay yu nga xamante ni mën nañoo dimbale lu lépp fondation bi da koy bàyyi xel am nañ commission bi nga xam ne dafa jëm ci wàllu ndaw ñi ndaw ñi nag mooy jafeñ-jafeñ bi ci wàllu lekkool yi ñu nekk moo tax sax ñun dañuy xalaat ci fondation Cheikh Ahmadou Bamba bi di def li prix ay prix eh, maanaam xale yi gën a xarañ ci seen lekkool ba ñuy jàngee ndax système bi ñuy jàngee dafa xaw a yéeme dafa xaw a metti ndax dañ naan la li sa baay doon rek ngay doon te ñun dañu bëgg xale yi dem ci université yi dañu bëgg ñu ñu mën seen diine dañu xam seen diine waaye nag dem ci njàng mu kawe mi waaye léeg-léeg nga tase seeg maître bu lay jàngal sax ne la yow mécanicien wala soudeur nga mën a doon ndax loolu la say waajur doon du àgg loolu nag lu mat a xalaat la te ñu ngi koy bàyyi xel nan la ñuy joxe xale ay prix ba nga xamante ni nii danañ jongante bay ba dem nekk ay député nekk ay maire nekk ay ministre fa ñuy dund ndax loolu it euh, lu am solo la te dañ ko war a bàyyi xel. Euh, sëñ Xaadim mi ngi ci ñoom ñoom ñoom muy muy wàllu sëy am nañ commission bu ñu tuddee Soxna Jaara ci wàllu médiation waaw bu sëy yëngoo nan lañ koy réglé ba assistante sociale du ci jot. yooyu yëpp ay xalaat la lu ñuy bàyyi waale muy commission soxna jaar yi nga xam ne ñu ngi koy bëgg a taxawal ci fondation Khadim Rasoul fondation coopération lu jëm ci commission coopération ak développement ndax ñu nit fële dañ fay bàyyi suñuy lempo dañ fay bàyyi suñuy lempo lempo yooyu moom bu ñu nekkee mbooloo moom la ñuy jëlaat di indi Sénégal ci wàllu coopération ak développement moom la ñuy defee ay projet yi ñuy def may ñu ñu dara ndax lépp lu ñu moom la sëñ bi te loolu commission coopération développement bi ñu taxawal ci biir fondation bi mooy waral loolu mën a dellusiwaat ci réew mi te kenn duñu xoj kenn du ñu xoqantal kenn du jàpp ne daf ñuy may fekk ne lu ñuy jël ñoo ko moom commission bi mujjee nag mooy commission recherche ak ak divulgation ak investigation ci ñàngaleem Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul ci kaw suuf nga xam ne àdduna soxla na ko ci biir loolu la ñu soxla ci mbind yi sëriñ bi def euh, am na sax yéen ñuy jukki ci Masalikul Jinaan am na suñu benn mbokk bu nga xamante ni Bilal la tudd bind na ci enseignement Cheikh Ahmad Bamba euh, sëriñ bi euh, téeréem bi mu def ak lépp luy bind ndax espagnol la ñuy wax espagnol bi nag moo waral Eh, faaw ñu gën a am mbind yu nga xamante ni méngoog la ñuy la ñuy dund xam naa daal ci gàttal eh, warugar yi yaatu na lool yaatu yaatu na lool du liggéey bu yomb waaye fondation bi ànd kook fédération bi nga xam ne sëñ Bakki Ndiaye moo ko jite ak mbooloo mi teew ñëpp mbooloo mi mujjee ñëw sëñ Fallou Kane teew na fi sëñ Ablaye Diop ñi jógee ak sëñ sëñ Touré ñi Valence ñi Madrid ak feneen ñi ngi tàllal suñu loxo ñëpp ñi ngi xalaat benn bis bu ñu war a taxawal le 27 avril bii Tenerife fekk bàyyi alaaji Abdou Ndiaye li ma waxoon rek mag ñi la fa baax la fa taxaw ñoo ko taxawal la fay am tey di wéy ñoom la woon bu fekkoon ne ñu fekk ñu mag ñi def lu mel noonu eh, tey moom kenn mënatu ko wax kon li fa taxaw li fa li ne nii duñu xam lu muy ndax ñoo daan laqatu ci seen i biiri néeg di dund sëriñ bi kon nag ñi ngi ciy tàllal loxo ñëpp ci bisu 27 boobu di ñaan képp ku nga xamante ni liggéey bi ñuy def ci Espagne eh, am nga ciy xalaat ñi ngi lay ñaan nga it eh, jëwriñ yi fi teew sëñ sëñ daam Euh, sëñ Mbacke njaay mi suñu président li ñu war ci fédération ak daayira moom ak Sénégal ñu ngi koy def li ñu war ak suñuy këri diine yi ak loolu ñu ngi ci waaye nag nan la ñuy def ngir njaboot giy dundu fële ak njaboot gi nekk fii ba bu ñu doxee ñu siggi waaw ñu siggi duñu nekk ay gaal la jël rek di dem waaye barke bi am fii it ñu ñu indiwaat ko ñu bokk kook suñu njaboot loolu mooy liggéey bi ñu ngi jégalu bu baax kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakatu bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu noo ngi nuyu suñu sang su baax si fi teew mu leen ko ci sëriñ Cheikhouna Mbacké Abdoul Wadoud ak sëriñ Cheikh Khadim Mbacké mi nga xam ne euh, moo ñu invité ci bis bi nuyu bu baax itam sëriñ Khadim Silla Euh, yaakaar naa ne ni ñu ko waxe woon rek ci groupe yi ne woon nañ leen thème bi jox nañ ko ku ko yeeyoo ndax dafa bokk ak ñun dund la nekk foofa waaye lii ñu mujj a wax léegi itam sëñ Cheikh ñu ngi koy sant bu baax a baax ci tournée bi nga xam ne ni def na ko parce que moo waral lii lépp bu fa ñëwul woon ba dugg ci ruq-ruqaan yi jaxasoo ak taalibe yi du xam la xew waaye ñëw gëm fa ñëw ba gis ne taalibe yi mar nañ mar nañ am nañ mar wuñ am wu xóot maru xam sëñ Tuuba maru xam seen diine maru dund seen diine maru dundal seen culture loo mar la fa sëñ Cheikh fekk ndax dem na fu nekk euh, sëñ Xaadim danga nga xaw a gëj tuuti Granada waaye comme ni nga ko waxee kër sëñ Touba ga nga fa fe naa bi ko sëriñ Mourtada di digle jombul ngeen ànd wala voyage yu bari ànd ngeen ko yàlla defal nañu tawféex ba ñoo fa njëkk a am kër sëñ Touba gu ko lew ca dëkk ba ci réew ma yépp goo xam ne su neexoon sëñ Muntaxa tey ji mu ne indi leen ma caabi ji ndax dërëmu tubaab nekku ci dërëmu bànk nekku ci ci tawféexi sëriñ bi ndax bokk na ci kër gi nga xam ne sëñ Mourtala boo waxoon ne bu noppee maa koy inauguré loolu moo taxoon ñu defoon ci jéegu yi ñu ci def ngir bëggoon mu ñëw inauguré si ko far yàlla def at mi noppee la wuy ji sëñ Maamoor ñëw inauguré si ko waaye yéen ji ci sëñ Mourtala amoon ba àggoon na ci bim nu koy wax sax wax ne su ngeen xamul yoon wi ngeen di jaar ba am ko ma jox leen këyit yi waa Amérique tënku woon ba am seen seen seen kër waaye yàlla defal na ci tawféex Serigne Touba ba kër ga fi mu waroon a mën a amee jafe-jafe fekk nu weesu ko muy jamonoy Covid bi ndax Covid bi bi mu duggee kër yi local yu bari yu ñu luye woon di ci fay cher euh, jafe-jafe Covid bi tax nañu ñàkk ko waaye ñun fekk na suñu kër ñu fay ko ba mat ba amatuñ benn jafe-jafe loolu nga wax daara ma nga fa euh, sëñ Mamor. surtout sëñ Mokhtar Bintelo la ak ku ñuy wax sëñ Modou Blay Sey di surtout Mor Fallou Sey ak nun ñii ñàkk solo lool waaye nongo fa di nob na bi ca njàng ma di nob na bi itam ca jumaa ja sëñ Cheikh mii ñëw na fa ba jiite na fa ajjuma eh, njàng moomu nag am nañ ci ay jafe-jafe lool ndax problème mu kat ndax foofu jot dafa amut te ñay jàngulu mënuñoo fay jàngalekat bi ba tax na loolu damay saisir occasion bi ndax bu ñàkk ngeen am ci ay pexe wax nañ ko fi sëñ Mamor ba mu waxoon ne mën naa am ñu mën a am ay professeur ci état bi mosoon naa dégg itam ci ministre bi ay sa Tall sàll mu wax ne école sénégalaise am na ñu ngi koy installé ci Afrique moom sax waxoon naa ko ne ko nan lañ mën a def ba am école sénégalaise ndax moyens ñu mën a am moyens ñu war a jàngale suñu xale yi euh, lii sëñ Xaadim wax man de solution yi muy wax képp ku may laaj solution loolu laa lay wax mooy xale bi defal loo man ba yenn âge yu ndawe yi bu ko ñëwaalee ci réew ma man xëy na am naa possibilité indi samay doom waaye yóbbuwuma kenn ndax dama naan euh, doon naa tànn balaa ñuy dem di moins ñu am vingt ans comme yéen ñi nga xam ne yéen a yor nationalité li loi espagnole bi wax ba vingt et un mën ngaa yóbbu sa doom kon lu fi waaye di njëkkante ba di ko yóbbu ci ay sept ans huit te du del si jàngi parce que del si jàngi si biir li sëñ Xaadim wax lii problème bi mooy yaay bu xale bi xasee ba dugg Europe dootuñu nangooti mu del si am na ci ñoo xam ne nii danañ nangoo delsi parce que dañ leen di nax ne leen dem leen jàng alxuraan te delsiwaat te yàlla dafa def xale bi tuuti Europe màgget Europe tuuti rek dafay am xel am na ci ñoo xam ne ci deux ans lañ def Sénégal mokkal alxuraan delsiwaat Europe bu ñu delsee Europe suñ toogaatee ñetti at alxuraan jaraaf ñu nekkaat ci yeneen kon daayira yi dara tanewu ko ci man damay wax ne leen ku fi yor njaboot na nga ko nargan ci daayira yi xale yañ fa indi ñu nekk ca café ak di jàng xaside yi ñoom suñ borom dimbale na leen ñu ci bari sobe nañ daayira yi itam am na sew-sew bu ma gis boo xam ne danaa leen ko dénk mooy dafa mel ne ñaari façon ñoo ñoo am muy daayira yi nga xam ne mooy daayira cosaan yi dajale xaalis ak daayira yi nga xam ne mooy daayira kuréel yi dafa mel ne nag fi mu ne nii xale yi ci kuréel yi la ñu gën a joy waaye comme ñoom ñaari daayira yooyu mën nañoo ànd def leen tout ba boole leen ndax xale yi ñoo yor doole yi ji fi mu nekk nii financièrement ñoo ko man ñoo yor itam doole kon nag fexe ba mën a kolaabare ak xale yi mu doon benn daayira defe naa ne bu ñu ko defee duwaañ ndax xasiida damay wax ne day fiir goo xam ne kum fiir jàpp la ba tax na ku daayira xasiida yooyu ñoom nangu nañ xale yu bari te nag lu baax la ndax xasiida lim mën a def ci xale bi beneen daayira bi mënu koo def ci ci xale bi xasiidati faaxat suyuuxa tarxiya wa kulla xayrin wa suyuuxa tarbiya te ñett ñooñu li ñuy soxla lépp mi ngi ci ñooñu te loolu mi ngi ci biir xasida yi kon il faut que yi seet ñu jaxasoo gën a jaxasoo ak daayira kuréel yi ñu ngi nuyu di siyaare bu baax a baax sunu sang su baax si ni ko bàyyi mbay waxe euh, bu dee Europe wax dëgg yàlla soxla nañ lool ay boroomi xam-xam buñ fa mënta ñëw di jàngale it ñu di fa ñëw di fa def jataay yu mel nii ndax daan na am ci jamonoy sëriñ Murtada jamono sëñ Modou Boussa Dieng jamonoy ba ci sëñ Mbàkke Soxna Lo waaye fi mu nekk nii tumuraanke na fa kon ñoo ngi tàllal loxo borom xam-xam yi nekk fii ci dëkk bi luñ la mën a dimbale rek yi ñëw foofa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëñ sëñ Cheikh ñu leen waaw salaamaaleykum wa rahmatullah ñu nuyu mboolem mi fi teew gannaaw bu ñaanalee sunu sang bi mu Ahmadul Muntaxa di nuyu euh, waa académie bi ci njiitul sëñ Cheikh mii mook sëñ Muntaxa sëñ Maam Mor Pakala ak Basiru Silla ak sëñ seex ak ñi ko jiite ñëpp ñu sosoon ko fii ci ndigalul Cheikh Ahmadul Muntaxa ak ak xëy na euh, njàmbaaru euh, doomam ji sëñ Cheikh ak sëñ Muntaxa mii Euh, kon nag man sañ bokk ci laa bokk ndax ñoo bokk yarandoo ñoo daan ànd kon mel na ni ñoom lu nu nekk loola bokk naa ci maa ngi ci biir euh, lii nag dafa am solo ndax euh, sëñ Cheikh dëgg la jóg na tukki waaye nag sëñ Cheikh waajal na ko bi mu daataan tukki ndax am nay conseil bi mu daataan jóg te ku yaatu la ñu bari woon na leen wax ak ñoom te man yaakaar naa tukki diaspora bi maa ngi leen nuyu bu ko fàttee ku ma gis xam ne diaspora bi ci laa bokk ndax bëgguñu cee feeñ waaye dañ cee nekkoon ci discrétion ndax yaakaar naa ne euh, sëñ Njaay mii ca Tenerife sëñ Abdou Njaay fukki at ñaar atterrir nañ ko mu denu tertu man ak Cheikh Amadou Mourtala kon loolu lu lu lu am solo la ba mu fa njëkkee ñëw ba ni mu ñibbi àjjana yoon wu mu fa demee ñoo ko ñoo ko ànd ñu dima ci seen nii rek kon loolu xam naa ci lu bare bare bare sëñ daam loo ci Ibisa ki doon wax Madrid man génération njëkk laa xam xam naa man bi ma fay géej boobu moom ñëwagu fa sëñ Njaay mais yaakaar naa ne ku ko laaj Ibra Jaxeer Njaay wala eh, kii cuun wala mut Juuf génération yi la bokkoon kon xam naa ci lu bare bare bare kon nag ñu ngi sant yàlla ci lii biñ ci ñëwee fekke ko ah docteur Khadim la nag moom itam daal dañoo dund lu bare <laughs> lu bare bare loo xam ne nii xam naa lu saf xorom la gis nga ngaf-ngaf ju mu yàgg def ci kër Serigne Touba yi di fa jàngale yegg na ci mën ak moom yaakaar naa ak maam Ballam suñu daw balla dem nañ ci kër Serigne Touba mu di fa jàngale fa waxtaan ban fay jógee sala RER ba sax bu ñu yóbbu ko te loola volontariat la boo xam ne nii ngir def lu baax rek a taxoon te booba metti na trop ndax yaakaar naa ne France bu koy wax liggéeyub sëñ Mourtala dafa dafa dafa dafa dafa ëmb bitim réew ba nga xam ne nii ndax ñun dañoo teel a génn te liñ ci xam yaakaar naa Paris sëñ Xaadim suma ma juumut daayira ya fa woon bokk na ci ñetti groupe yi gën a mag bu sëñ Basirou Lo Ali Aram bu bu bu Kebe ma daan ñëw téyër ba. Alaaji Kebe Kebe ak Cheikh lay Dieye kon bi nga waxee daara ji rek jàpp ndax daara ji dama koo xam daara ji kër Paate loolu ak Absa Cissé kon li may wax lu ma xam la lu ma dund la euh, moo tax euh, lii dañ ciy sant yàlla ci ci ci bi ñu demee ban toogaat fii tey di ci di ci di ci def témoignage ci ndigalul sëñ Cheikh mii. kon nag yéen waa Espagne bi sëñ Seex di jóg dafa jóg dafa fekk moodu yi immigré yi dañoo bëgg a gis yeneen kanam yu bees yu leen indi lu bees yàlla dogal na li mu liggéey nii di ñëw di ko fa indi eh, lu ngeen ci gën a mën a jàpp rek na ngeen na ngeen ci jàpp ndax ndax ñun tàggu nañu conseillé nañ ko bi muy dem te wóor wóoroon nañu ne ñun fu mu dem rek ndam ndam ndam la fay jële ndam lu mag la fa jële loolu daal lan woon ne dañ ko ci sànni ci ay kàddu di leen sant di nuyu nag mboolem waa diaspora bi ndax rawatina nag waa Madrid ndax Madrid ñun ci ñu ko sanc loon bokkoon yaakaar naa ne ban fay nekk Daam Njaay ñu sosoon Matlaboul Fawzeyni ba tabax ci hôpital bi loolu ci suñ kanam la kon ñun loolu buñ toogee tey sax yoruñu nationalité ñoo dem bu jël suñu kayit yëbbalaat ko waaye delloo leen ko ñëw ñu bisi ndax ñun ñoo daan dalal nit ñi di leen wutali kayit di leen yóbbu ñuy ñuy Alphonse Tracy <laughs> ñuy ñuy wuti asile kon nag ñu ngi ciy sant yàlla bu baax kon nag docteur Khadim jërëjëf jëf sëñ Cheikh naa Abdou Wadoud di sama xalifa ñu ngi leen sant sëñ Cheikh jërëjëf sëñ Cheikh kon nag euh, yàlla nañ ko yàgg a teewe bi jaay den mosuwa barke Cheikh Mountakha jërëjëf bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala xadimihi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu leen di dañ leen di nuyu ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha kàddu gi nag yaakaar naa ak cant rek lay doon cant gi ginnaaw bi ñu sante Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne mooy jox ndigal waaye waxtu wu nekk mu di nemmiku ak di ci def loxoom dañuy njëkk sant rek bi nga xamee ne ni ko suñ seexu naa waxee biñ xalaatee ne thème bii lu ñu war a waxtaan la rek ñun ñëpp suñ xel daa ci suñ xaadim si la waaye biñ ko ko joxee gis ngeen ni mu amee solo lim ci lim ci génn ci ay tomb yoo xam ne yaakaar naa ne wareef na cee mën a xalaataat liggéeyaat ci kon suñ seexu naa yow tam ñu lay sant bu baax ci taxawaay bi ndax moom moom suñ seexu naa moo jiite commission euh, scientifique bi bu bu académie bi waaye di sant mbooleem waa académie bi Euh, xam ngeen ne àjjuma jee weesu sëñ Abdou Mbacke Abdourahmane moo ji woon ak sëñ Maam Balla def waxtaan yu am solo waaye ñu ngi sant ñëpp di sant mboola mboolam ñi nga xam ne ñooy ñëw di teew di am ak ñu jotaay bi waaye tey xam ngeen ne biñ ko jaglee diaspora bi waaye Espagne moom dafa mel dañoo dañ ko far nangu <laughs> ndax ñoom wax di yàlla ñoo ñëw teew teewaay bu ama am solo xañ na li nag ñu ci ëpp jamono ñoo fi ñoo ëpp ci ñu fi nekk waaye seen teewaay am na solo lool ndax kilifa yëpp ñëw nañ teew kon damay bañ a lim turi yi di juum ko ginnaaw waxoon nañ ko ba noppi waaye ngeen xam ne suñ xol seet na baax seen teewaay ngeen teew ah, ndax noonu rek lañ ko bëggee woon ñëpp ñoo xam ne ñu nekk ci diaspora bi te nekk ci réew mi ku fi nekk rek mën a teew ndax lu fi génn mën ko yóbbaale waaye nag seen teewaay bi yóbbaale na teewaay yëpp. te yàpp naa ne ñu bari ñu ngi ko doon seetaan direct ci kii ci ci ci internet bi waaw am na kon nag suñ comme julli day bëgg a jot ngeen xam ne daal dañ doon sant rek sant na ngeen baax a baax a baax waxtaan bi nag yaakaar naa ne ni ma ko waxee rek ay toom war na cee mën a jóge demoon naa bay xalaat ne warees na cee ma def sax ab atelier donte kent lay doon loo xam ne dañuy seet euh, suñ euh, suñ xaalis mi dañu ko tënkal moo muñ ko saakoo ci yoom danañu ko mën a tënkal moo suñ seexu na ak mboolem borom xam ne ñu ñëw ñu def ci benn bëccëg boo xam dañ ci gën a mën a waxtaanaat gën cee seet ay tomb yoo xam ne danañ ko gën a mën a eh, yaatal waaye bu ñu noppee tënk ko doon luñ mën a jariñoo loolu xalaat la boo xam ne maa ngi leen ciy déglu fekk buñ ci waxtaanu ba juboo jàpp naa ne eh, fii ak ñuy waree sax mën naa nekk ah, lu mel ne samedi bi mu ci koor gi ci koor gi wala yu mel noonu wala wala dimanche waaw ah, kon daal ngeen xam ne suñ xol seet na baax a baax ñu leen di sant bu baax a baax di leen séentu ci ajuma yi ñëw yi nga xam dañ cee fas yéene liggéey Serigne Touba ci ni ñu koy waxee rek liggéey Serigne Touba ci xam-xam ak soññ ak neexal ñi nga xam dañoo liggéeyaloon Serigne Touba ci xam-xam ba ba bañ ko ñu ko jariñoo xam ngeen ne ajuma ji mujj dañuy sargal sëñ Moustapha Abdourahmane Lo nga xam ne moom itam liggéey na ci xam-xam ak ci diaspora bi liggéey bu rëy rëy kon nag ñu ngi sant ñëpp mbokk yi yéen yéen moom yéen borom yi sëñ Moustapha sëñ Mamour sëñ Bachir waaw sëñ Serif yéen ñëpp ñu ngi leen di sant mënuñoo lim yëpp sëñ taxa moom moo sëñ Fàllu ñu ngi sant ñëpp mbooleem ñi nga xam ne gis nañ leen ngeen xam ne suñ xol seet na suñ aadi moom xam naa dafa yeex nañ ko yeex gis waaye kon moom dana bokk ci ñii ñii ñii danañ ci mën gën a leeral lu bëree bëri waaye nag incha allah lii la yaakaar naa dina am ay ay ay ay yoon yoon yoon kon nag jërë leen yëpp isaakumulaa xayran kon ñu ñaan kon bokk ñaan rek